أعوذ بالله سميع عليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بوكي حديث بسم الله نيندل تاي دا دون حديث بو خامني سي نيت باتش لاي لالو مو دون باتش يو خامني سي جوكاي جوليت لاي اجو جوليت بوكو لامبو رك من ناندي اب ايمانم ماتنا mën na ni ma nga jafe-jafe wi bi sallallahu taala alayhi wa sallam ñett yii nii ku ko xamoon di ko jëfe jàmm dina sax dàq si diggante jullit yi waxuma la sax si diggante jullit waaye dina romb jullit yi ba humanité bi yépp si jàmm nañuy dund mbokk benn xadis la bo xamne ne bi sallahu taala alayhi wa sallam moko wax yonent bi neena man kana yuminu billahi falyaqul khayran aw liyasmut mu delu wat ni man kana yuminu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu yonent bi ni wat من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره بوكي بريمير بارتي حديث بي لسي يونتي بي واخ موي لي يونتي بي نينا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر كيب كو خامني گم گني يالا am na existe nga gëm ko gëm gu wér nga gëm ni tamit yowmal xiyaam am na maanaam bis dina ñëw yàlla teg ñu ñëpp si benn penc di réglé suñuy mbir mu ni ko gëm loolu nee na bu tijjee gémmiñam di wax fa yaqul xayran na wax yiw bu waxee yiw ba pare awli yasmut aw boobu du choix de awli yasmut bu waxee mbax ak yiw ba pare ci mbokum julitam wala su lu mënti doon su sujet bu mënti doon fali yasmut na tëj gémmiñam noppi bala mo wax lu koy bindele bakar wala bala mo wax lo xam day tujum rew wala bala mo wax lo xam day jaxsem askan wala muy yaqub askan yang bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax loolu deuxième partie hadith bi yonent bi ni man kaana yuminu billahi wal yawmil aaxir képp koo xam ne gëm nga ni yàlla am nga gëm nga ni yowmal xiyaam dina bis dina ñëw mu am mu ni fal yukrim jaarahu na fexe bay teral ay dëkkandoo am na beneen version boo xam ne dani fala yuzi jaarahu ak lu mënti xew na fexe ba bum def lu bon ay dëkkandoo troisième partie bi ينتبي صلى الله عليه وسلم نينا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ينتبي صلى الله عليه وسلم نينا كيف كو خم غم يالا امنا تا يالا بي ام بن لا موي الله الصمد nga gëm ni tamit bis penc dina am neena fal yukrim dayfahu bo amé gan nang ko téral يونت بي صلى الله عليه وسلم من نو ريزيمي حديث بي سليم وخوني المسلم من سلم المسلمون بلسانه ويده اب جوليت دي موي كيغا خامني في خاني بو موسل موروم جوليتامي سي لامينيام اكسي اب لوخوم manam théoriquement ak pratiquement fexena ba du ci wax wala mu jëf lo xamne da ci lor koko de neena moy julit bo xamne mat na seuk yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxon na ben sken ci sahaba yi mu ni ko falaa taqul bi lisaanika illaa maarufa wala tubassit yaddaka illaa ilaa xayr yonent bi waxon na ben ci sahaba yi suma junul kun naan aswat bu ma juumul waxoon na aswad ibnu asram ni ko fa laa taxul bi lisaanika illa maarufa sa làmmiñ de fexeel ba bu su lu dul mbaax sa làmmiñ daal fexeel ba bu su lu dul mbaax fexeel ba sa làmmiñ saa yoo ko tijjee wala saa yoo ubbee sa téléphone di bës say clavier na nga fexe ba wax si lu baax bind si lu baax moo tax mu ne ko bu fexeel ba sa làmmiñ lépp lu siy génn rek na doon wax ju baax mu ni ko tamit wala tubassit yaddaka illa ila xayr sa loxo bi bu si def benn action maanaam sa loxo bi bu ko yëkkati mukk di def benn action illa xayr lu dul action bi nga siy def day jur yiw te jiw lay mbool ba jeex tàkk kon mbokk yi sallallahu alayhi wa sallam wan yoon ba yoon baa ngi noonu ku sa tegu incha allah daa yegg ku si teguwul nag lu yàlla xam doy na kon mbokk yi nan delluwaat di ressourcé wu si diggante xadiisul nabawi ak alquranul karim di ko leerale nag sunu waxu borom xam-xam yi nga xam ni xëy na seen aliwa moo gën a xóot wala ñoo gën a jege ak dégg-dégg si ayatul quraan yi ak ahadiisul nabawi incha allah seen mission bi mi ngi noonu chaque samedi incha allah dinañ leen ko indil benn xadis si xadisu yonent bi ñu jàngat ko incha allah barakallahu ko seen mbokkum daara oustaz Maodo Malick moo fi jaaroon